ñu xam ne nag ci doxinu jamono kenn ku nekk wala ñenn ñu ne danañu soxla wala bu dee kenn dana soxla su kër këree ci ay liggéeyam ab diir mu jël ñaar ba ñetti fan ñenn ñi fukki fan ak juróom ñenn ñi weer woo xam ne duñ xëy duñ gont soo waxee ñu ne dañuy dallu liggéeykat bu nekk danañ ko ko faral di jox ñaare fa muy liggéeyee bu dee ay machine it yuy dox léeg-léeg it ñu taxawal machine yépp fu ca jar fomp ñu fomp ko fu ca jar dif defaat diw ñu diwaat ko ngir bu tàmbaleewaatee ab liggéey gën koo man ca na mu ko daan defe loolu nag su ko nit soxlaa aw nit soxla ko ay machine soxla ko yi nit di liggéeye ruux gi nga xam ne mooy nekk ci nit tax ñu naan mi ngi dund moo ko gën a soxla te lii dundal ruux du fa bàyyi aw yaram lii dundal ruux nag mooy wéet ne tekk di xalaat ci yàlla subhanahu wa taala loolu moo koy dundal li koy suuxat di cër yi nga xam ne ñooy kër-kër yi di jaamu yàlla yàlla na nu ko yàlla yombalal su dee ruu nag ruux bu ñu ko tuddee ne mooy dox nit di dund du dem bàyyi fa jikko du dem bàyyi fa bakkan bi nga xam ne mooy yëg lu neex ak lu naqari ñooñu nag seen waxtu wiñ naan tekk bu dee liy dundal aw yaram mooy lekk ak naan liy dundal ruux di xalaat yàlla ak luy tax a gën a jege yàlla kenn ku ne xam na ni weeru koor làmboo na yooyu yépp ndax la tax mu làmboo ko mooy ñi seen ru doon dund moo tax ñuy wax ñi seen pas-pas di dund moo tax ñu di ko wax ñoo ñoo feete kaw su dee ñi nga xam ne nag jàpp nañ ne ak dund moom yaram kese kese la képp lekk naan nelaw jóg sangu solo mu xam ne it weer wu ñuy tàggate aw yaram di ko ca jàngal bu dee xamoon na ñu fàttali ko su xamagutoon ñu xamal ko waxtu daara jooju mi ngi bëgg a ubbi muy weeru koor daara la ci yeesal pas-pasub gëm yàlla ndax bi muy wax di gàllu ci suñ kaw yoor weeru koor dafa woote ku ñu woo ci aw turam nag ñaare dana wuyu bu fekkee ak déggam neex na bu ak déggam neexutit ñi xam ne moom la ñuy woo mën nañ koo wakk ne ko yow la ñuy woo mu wuyu ñaar yépp munta ñàkk a daje ci ku ñuy woo dafa wax ne yéen ñi gëm yàlla gëm yàlla nag du turu kese-kese wala carte de membre wooy jënd rek su la neexee tënku ci sart ya wala bu la neexee bañ caa tënku ndax loo xas ba jënd yaa ko moom boo xas ba jënd sa carte membre yaa moom waaye gëm yàlla moom ñi tax yàlla di ko wax mooy ñi nga xam ñi ngi dund pas-pas ba ñépp walbatiku ku ko woote woon dana bari ñu wuyu waaye lay tege ca woote ba nag ca ngay xàmmee ñi seen pas-pas di dund taxoon koy woote ak ñi nga xam ne seen pas-pas daa wéradi daa loof dana laaj mënatu dara ñooñu moom bu ndigal jógee desi dem wàcc leen fa ñooñu nag la gàll ci seen kaw woor weeru koor ana la ca doon daara ju ñuy jànge pas-pas mooy xam ne fu nit nekk yàlla nga fa nekk ak moom maa yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala xamsatin illa huwa saadisuhum wala adna min dalika wala akthara illa huwa maahum aynama kaanu su ko defee nag bu nit ki duggee ci ab barab fasandoo woon koor ni ñépp biig du biig sax dama ko waxe noonu rek ci guddi gi mu xëy bagaas jumtuwaay yam daan defare ndékk yépp yambandoo ci néegam moom képp mu nekk fa la pas-pas buy dund di wane mooy yow kat yaa ngi nii yaa fi nekk waaye yàllaa ngi lay gis te moo digle woon biig nga nangu woon moo woote woon biig nga wuy foofu am na lu fay sës mooy defar jikko di jomb te bañ di rus kese kiy rus saa bu gisut ñamuy rus wala la muy ñamuy rus ak wala fam koy rus rek mën na ko def waaye kiy jomb fu mu mën a nekk day ànd ak jikkoom dugg ci jomb du ko tax a def du ko tee bàyyi du ko tax a bàyyi kon daara la juy jàngale di yees nu ñuy yeesal pas-pas ak nu ñuy defarawaat jikko ak nu ñuy defaree bakkan yaa ayyuha nafsul mutmainna nafsul mutmainna fa la ab jullit war a dox jëm su ci ab du su ko su ko ab du ab jullit dee dundee nafsul nafsul mutmainna la mu koy jural mooy saa bu demee ba war fee bàyyi ko yàlla day woo ruugi naa ko irjii ila rabbik radiyatan mardiya fadxuli fi ibaadi wadxuli jannati yàlla na ci yàlla boole waaye am na it lu ñuy wax nafsul amaaratu bi suu an nafsul amaaratu bi amaaratu bi suu inna nafsa la amaaratu bi suu waaye kii am nafsul mutmainna mooy koo xam ne bu lu mel ni weeru koor ñëwee doon daara ju ñuy yeesale pas-pas ak di ci defar jikko jullit bi day gaaw moom rek dugg ca dara cay potoxlu defar yàlla na nu ko yàlla defal ku daan bakkanam dana am lim bëgg képp ku léewtoo bakkanam ba daan ko wu na ko wóone lim bëgg dana ko am waaye su fekkee fu bakkanam jëm mu jëm fa fa mu gën a yombee fa mu gën a sedde fa mu gën a neexe kooku bakkanam mi ngi am ci moom lim bëgg te su boobaa musiba rek la koy jëloo ndax an naf inna nafsa nafsul amara bi suu fa muy jëmale nit jaarale ne ko yoonu sawara yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne yoon yi jëm aljanna yépp yu metti kese moo ko wër moo ne ci pegg yi moo ne ci digg bi da ngay jégg yii di toppale yii wër ko jàll waaye yoon yi jëm sawara yépp lu neex lu yomb kese moo ne ci yoon wi dara du la dogale day mel ne bërigo boo bërëng ci mbërtal rek ci mbar ci mbartal rawatina muy ab tëli teg loxo mu dem teg loxo tegul loxo mu dem waaye bërigo boobee bu rëccee loxo yi ña ko yoroon mën naa dugg foo xam du leen neex misaal mu yomb xam la moo tax bu waru koor jubsee xool yi dund yépp ñi am pas-pas bu wér ñépp dañ ko yàkkamti xam ne lu leen tëwoon mën na leen a yomb lu leen jafe woon mën na leen a jege léegi lu sori woon mën naa jege lu jafe woon mën naa yomb kon kenn ku nekk na seetaat boppam nii muy séentoo weer yi nga xam ne fan yu néew dinañ ci dugg ku ne mën naa xam boppam yàlla na nu ci yàlla dimbale ba ñu mën koo joxe ni ko suñu borom santaane koor nag bari na baat yu koy bari na lu muy tekki dama woor moom bu ñu demee ci alxuraan danañu fekk mu ñu nett li sayyidatuna maryama alayha salaam ba mu xëyee xëy def lu kenn musta def muy soxna su yewiku te musta am boroom kër musta am sax ku koy bëgg far jaaxaloon na ñépp ñu ne loolu nu mën a amee yam àndal yépp ànd ca waaye yàlla da ko ne ku def lu kenn musta def da nga dañ la mbamb lu ñu musta mbamb kenn waaye yow lu coow li bari bari la nga fekkewu ñu di ko wax mënuñu ko dara waaye ñu jàkkaarloog yow ku wax ak yow nee ko inni nadartu rahmaani sawma ne leen tey damaa woor koor googee mooy du ma wax kenn tey li ma fas yéene mooy du ma wax koor gi ñuy waxtaan nag mooy koor gi nga xam ne nit ki day jàpp am na ñoo xam ne dañoo desee dégg baat bi da ngay dégg ñaan jàpp jot na am na jàkk yu koy wax te fekk jàpp la ñuy wax al imsaaku téye sa bopp ci lépp luy dog koor luy dog koor gi ñuy waxtaane la ca gën a fes mooy lekk ak naan ci bëccëg bi ak jëfandikoo yiñ la mayoon ci bëccëgu weeru koor ci ña nga ko war a siqal ñu tënkat ca na muy gën a rafete ay bët ay gët làmmiñ nopp loxo ak i tànk bu mu dox jëm fu mu warta jëm bu mu laal lu mu warta laal bu mu dégg lu mu warta dégg bu mu wax lu mu warta wax su doxee ba agsi foofu jàpp na ne fi ñu war a jëm la ñu tàmbali faa wax lu bokkute la mu fa war a dégg na dem gaaw su leen mënta noppi la kon koor gi ñuy waxtaane mooy koor gi nga xam ne nit day tàmbali bu fajar feqee ba fa jant bi sooyee du lekk du naan du def yow yu ma wax loolu nag waroom xam-xam yi kenn wérante wut ne farata la ci ab jullit kuy tudd ab jullit ku nekk la muy lay ba génn ca am na nu ko sariya di nangoo waaye ba neexu kese kese kepp du tax mu wàcc nit ki te bokk yi dañuy woyefal yu diis gis nga santaane bi yàlla ku ko bañ a jëfee itam yàlla du la wax dara fii amut ci soxla ndax xam na ne wiiri wiiri dañ ko naan wax ci bukki faw mu jaara jëfa lu mu wër wër day mujj ñëw fa mu dëkk rek kon du tax yàlla jëflanteeg moom fii lu koy wane ne dangaa bañ sama santaane du ko ko wan du ko ko wax ba mu ko santaane la ca génnoon ku def gis nag tam ku tam kuy gis nag tam la gis li muy jariñ waaye pay ga moom fa waajee réccoo lu teewoon mu def ko amatul njariñ réccoo amatul njariñ moo tax wolof sax lépp na ko nee na sàcc bu dul raw jërul yàq ay nelaw jërul yàq nelaw kii duggoon ci ak kër di sàcc yanu la mu bëgg a yanu lépp ba mën a tuta yanu mu ŋàbb boq taaw leew loolu jafe na kenn ni mu boole leen waaye nu ñuy fexe ba yor daal def na ko bi muy dem nag daa romb kuur yi ci wallandoo wi ak tuq yi kuur yi taxaw kuur yi tëdd tuq ya gënn ya taxaw mu wàññiku romb fa gisaatut kuur ya mu ne asalaamaaleykum ñépp na cal mu ne maa ngi nii maa jël maa sàcc xam naa ne kuur yii moom jëlewuñu fi seen bopp dañ leen fay jële kon damay teel a wax sama bopp maa ngi nii maa yor li ma doon sàcc maa ko yor mi ngi nii taxaw ñooña dirutoon seen nelaw di yàqu xam nañ ni li fekk génnuñu waa ji du dem ndax xamut fu ko kuur di dale atte suñu borom bi nag yëmut ak dara waaye noonu lay noonu lay mel xam na ne moom kenn mënu ko teggi gisee nii laa ko gisee duxut jëm ci santaane suñu borom bi moo wax ci alquran ne yaa ayuha alladina amanu kutiba alaykum alsiyaamu kama kutiba ala alladina min qablikum laallakum tattaquun ci ku ko man ku dib julit di mukallaf mukallaf am nañ nattukaay waaye nee nañ nattukaay yooyu su dajewut ci nit ki ndax yàlla moo bind wuutale takkit mën naa teg ko saa su nekk su xasee ba am fukki at ak juróom-ñett moom charia gàll na ko lim gàlloon baayam ak ndaayam bu dee jullit am fukki at ak juróom-ñett wér wér wér nag niñ koy xamee bokk na ci loolu neex lekk te du la wàññi dara fu la neex dem doo yor bant doo làmbatu doonte des na yor bant di làmbatu te du tee wér waaye daal fu mu bëgg a dem mën na faa dem lu lu ko neex lekk lu ko neex naan te du ko wàññi dara waaye léegi te nga gis bu koor gi ñëwee kenn ku nekk di jàmbat lu koy metti loo xam ne la muy bëgg ku ko wax rek mooy lii moom mënta ànd ak koor waaye su boobaa it naxul kenn boppam lay nax ndax kenn wóoralut kenn ginnaaw ci koor gi la ñuy wax la suñu borom tëjee aaya ba laallakum tattaquun ndax ñu xàmmee ci yéen ki pas-pasam di dund muy yëg ne fu mu toll yàlla nga tolloog moom ak ki ko yëgut yàlla nañu ràññee ci groupe booba ci kuréel booba mu ne nag ku sàtt yi daje ci moom ba mu war ko rawatina ca mu nekk ci dëkk bi mu dëkk su dee tukki it wàccagu ko waaye may nañ ko coono yi tukki àndal mu dog ba dikk ayyaman maadudaat fa man kaana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayaamin uxar kon yaxub alquran bu leer bu ànd ak détail sax daf cee am lu néew ci lu alquran di digle détaillé waale ca ñu ne ndax ki dëkk Sénégal dong la war mu ne fu mu leen mën a fekk ngeen di dund fa man shahida minkum shahra ku mu fekk ngay dund rek ak foo mën a ne ci kaw suuf si bu fekkee suufu si yàlla si la bu fekkee suufu si yàlla si nga nekk fu mu la mën a fekk te ngay dund moom mi ngi gàllu ki saw loos di la xaar waaye ku dem ci waxi yonent bi ci tëggin yu wuute yeeg riwaayaat yu wuute yi yépp it yonent bi sallallahu alayhi wa sallam benn yax bi la ñépp ko bokk daaray diine yépp daaray lislaam yépp ko bokk le buniya al islaamu ala xams shahadati an laa ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah wa iqaami salaati wa itaai zakati wa siyaami ramadan wa xajjil bayt loolu kenn werante wu ci bi muy soog a wàcc nag sayiduna talxatu bnu ubaydillah nee na am na waaju laaj yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko waaw gan koor ngay wax ndax kama kutiba ala lasina min qablikum am nañu daan woor di woor woor benn fan woor yi benn fan mu ne shahru ramadaan laa wax lépp lépp weer wépp mu ne ko bu ñu waree nag mu ne ko bu ñu waree ba ca ginnaaw suba suba la neexee umaat waaye weer wi la la yàlla gàll kon kenn werante wut ni weeru koor ci ponk yi la bokk ku xëy xëy dindi ko teg nee te tegu fa lenn ngantu sariyaalum nangu dañ koy dugal ci atteb ku xëy xëy na julli bokkatut ci lislaam benn la yàlla nañu yàlla musal ci loolu mi ngi jot nag ci taafeer weeru koor buñ ko xasee boo xam tënk na ñépp mooy bu baraxlu amee ñaar fukk ak juróom-ñeent ñu xool ko ci sow bi gis ko taafeer benn ñaareel ba it xool nañ ko xool gisuñu ko ñu mottali fanweer bu fanweer mu matee moom ca jant ba bu soowee moom weeru koor dugg na ku dub jullit ci sart yooyu ñu waxoon ak yu bari yuñ tuddut weeru koor mi gàllu ci kawam bor bu ko war la su ko wóorut ba faw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ku dog ci weeru koor benn bis ci ràññee moom te tay ko amul ngànt lu sharia nangu su wooroon su dundoon ñaar téeméeri at woor léppit du tax mu dab bis boobu ndax wéy na te moo ko moo ko ci jublu xam na ko waaye ak payamaa ngi koy xaar ñu ne loolu nag sharia bàyyiwut nit mu dem noonu rek ñàkk yaakaar ne ginnaaw du mën a woor adduna du ma du ma du ko mën a fay na ci génn mu ne suñu woree na woor yaari weer yu tegale yoo xam ne saa bu dogee benn bis day tàmbaliwaat lu metti la loolu luñ ko teg fii rek la waaye ëllëg yàllaa koy àtteel boppam ndax moo ne koor moo ko moom moom ak payu koor yàlla tëgg ci loxo kenn néewut nangam la ci lañ ciy am waaye dane moom moo ko moom te moo koy fayal boppam assiyaamu lii wa ana ajzi bi kan moo koy gis nag wala ñen ñoo ko gis waroom xam-xam yi ne nañ donte kenn nit moo ko gis ku maandu waaye ku maandu nuñ koy xamee ak a jafee xam am nañu wax ne mooy koo xam ne musuñ ko xamuñ ko ci caaxaan am nañu ne gisuñ ko mu koy def ñii ne gisuñ dégguñ ko mu koy wax waaye ku maandu yomb naa nat lool ci suñ jamono ku kër kër yi ba sonn ba dajalaatu lu ne mu daj ko ba am ab million am lum ci séentu fee juróom benn weer ka xelam di daj mu di ko ca yaakaar di nangu ko koo dénk kooku mën nañ ko tuddee ko maandu ki nit mën a dénk alalam moom ju bari jum sonn loolu door caa am door caa jot nit laa wax waxuma banque yi nit nit ku mën a dénk alalam xaalis bu bari wala kayit ay titre foncier yu bari wala oto yu bari kooka de moom mënees naa jàpp ne ci nattam moom ku maandu la koo xam ne su ko ne gis naa weer yow man war na ko mën a gëm ndax wóolu na ko ci alalam waaye wóolu ki sa diine koo xam ne sa kóoluteeg moom aggu ci di ko dénk alal kooku bu ne laa bu bu ne kooko maandu ne war na ko seetal ba xam kon koor néewuñ na ko nit ñi defandoo déedéet lu jafe la lu jafe xam la ñu woorandoo lu jafe la fii ñu toog man xàmmeewu mooy ku woor fi mu ne nii ak ku wóorul ñi may seen nii xàmmeewu moo ci ku woor ak ku wóorul kon nañuy woorandoo moom mat naa seetaan ba xam xam-xam na am déet nañuy julleendoo xamees na ko ñëpp bokk wenn melokaan wu ñu koy defee nañ ajanoo mbakk waxaale wuñ ko benn béréb sax lañ koy defee faam xanaa kon bu ñu doon mën a woorandoo di génneendoo asaka ndax ñenn ñi kenn tàmbalut ak moroom fu muy waxtu fu muy liggéey ak waxtu mi dañ ci alal kenn ku nekk mooy woor kenn ku nekk la yàlla di nattal kenn ku nekk la yàlla di fay nañu ko séentu nag suñu kem kàttan te teg ay nattukaay yu wóor ci ñi ñuy wóolu ba buñ nee gis nañ ko ñu ne ay ca séentu lañu wax lu yomb la ba ko yonent bi jàngale kenn gënu koo xam nit ñi kenn gënu koo dégg diine dane su saxabaan barax lu amee ñaar fukk ak juróom-ñeent daal na ñépp bala ñu julli timis nañ jublu sow adduna bépp ñoo bokkule sow bi xibla bu ñuy jullee lañ mën a wutale waaye sow moom fi jant bi fenk ak fi muy sooyee benn la nañ dëgmal sow xool ku munta giset na dem fañ koy séentoo ndax ñépp mënuñoo maase juum ci ne ma nga ne wanante ko te doon dëgg waaye kenn kenn ku ko gis moom képp te mënu ko wan kenn it moom na xam ne wo jël na responsabilité am suñ tëdd añ suba wala muy de waxuma ndékki sax suñu ko waxuma laa di añ waaye bu doyee ñëpp it day doy loolu lu mat xam la yàlla nañu yàlla dimbali ba ñu dugg ci si jàmm da ngay dégg ñi nga xam ne seen pas-pas daa xaw a def ñaan yàlla nañ ko yàlla nañ ci dugg ak jàmm génn ci ak jàmm kooku daa yàkkamti waaye yàlla nañ ci dugg ci jàmm tam ànd ko wér ak tal tañ àggale ko ci jàmm te tasa ceeg ngërëmal suñu borom